salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di ziar sama mbokk taalibe yi. ana waa ASC Santos. ana waa Santos. maa ngi leen di ziar baax baax di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp. di commencé ci nuyoo bi di ci jiital Serigne Fallou Mbacké moom mi nga xam ne nii mooy suñu tuteur fii ñi nga xam ne nii ci département bi di ziar ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy àndal ci liggéey bi. ñi nga xam ne nii la investir tout comme moi di nuyu sama tata Amitou di ziar ñeneen ñi nga xam ne nii ñoom ñoo les investis sur le département de Mbacké maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay xam naa ne bu ma limee mën naa juum di lancer un petit message rek di leen wax ne président Abdoulaye Sylla di leen wax ne président Abdoulaye Sylla incarnation nationale la président Abdoulaye Sylla patrimoine économique ce n'est pas ñun xale yu ndaw yi mu tàggat ñu bañ mel ni ñu mel ñun ay taalibeem la jàppee wuñ ko beneen considération bu dul ak sëriñam man ak sama frère Pape Diaris ak ñeneen ñi nga xam ne nii ñoom laa àndal liggéey bi fii ci Touba ak département bi di nuyu di sant yaa awa fàllu borom saam ak sëñ fàllu saam xam nañ niñ fay def xam nañ la fa nekk te xam ñi ngi commencé dérouler ay stratégie te am na foo xam ne nii buñ fa jaaree rek amaana au soir du 17 novembre yàlla mën na ñoo may ndam li tax yàlla war ñoo mën a may ndam mooy député yi ñuy dégg fii Touba man mënu ma koo tuddee député parce que duñu ay député askan bi ay député parti politique lañ wala ay député coalition de parti ñun nag rupture boobu lañ bëgg a instauré xam nañ niñ koy instauré te ñi ngi ci yoon wi di ko déroulé te incha allahu rabbi yi bu ñu yàlla maye majorité assemblée nationale li nga xam ne nii ñi ngi leen koy wax di leen ko dëgtal incha allahu rabbi dinañ ko matérialiser en acte xam nañ niñ koy defee président Ablaye Sylla xam na ni muy fexee ba ndaw ñi liggéey parce que ab société kat boo fexee ba jigéen ñi am xaalis ndaw ñi liggéey société ba neex loolu mooy créneau loolu la ñu inculqué ñun ñëpp ba tax na xam naa ni kàddu gi mënul gudd parce que contrainte de temps yi ñu am la fii bi may ñëw rek maa ngi gis kaar yi di parce que toogaay bi yàgg na metti na mais ñi ngi leen koy jéggalu bu baax a baax